Thiès ak Garga Mbossé lamb boobu ban jàngat nga ma ciy defal. ah loolu moom grand dama lay wax directement boobu moom am na favori quoi. favori bi Sa Thiès laa gis ne mooy du question. moo tax nga jox ko favori. lu tax ma jox ko favori bon d'après défaite bu mu jógee nii xam nga ak lu ko maanaam làmb da kaa jàngal fu mu toll nii moom lamb da ko jàngal te xam naa ne erreur bi mu jógee nii contre Boy Niang dootu si revenir ba ilaa yow mi même erreur bi jugee na ci contre Malick Niang te bi mu ñëwee il a refait defaat na ko. la woon rek euh, maanaam soo ko gisee moom esprit booy moo ko jàppoon rek man bëri na si ay combat yu combat du contre Malick Niang kese def na si ay erreur erreur mais contre Boy Niang si la erreur am ñëpp ne ko la xam ne moom lii mu def nii wax dëgg yàlla lii mooy nekkoon erreur am donc doon na ko def di échec di def di ko def di rëcc boog di rëcc mais contre Boy Niang dina rectifier par force lu mu daan bëree incha allah man gëm naa loolu waaw. du far nag faralu ma ko déedéet du sama mbër. non non mais dama lay wax rek. en tant loo xëy moytuloo ci garga. si garga mboose non même pas ndax su dee xeex Sa Thiès mën na xeex mun na xeex quoi mais c'est que ëppal rek ko ko jàpp moom. garga ko dàq xeexu benn benn. waaw xeexu benn benn moo ko dàq xeex jam déplacé affaire yooyu moom moo ko jàpp loolu moom boobu garga moo ko dàq moom mais moom suñ we moom laa mu jeex Sa moom ku mu jàppanteel tey si bëre rek wax dëgg yàlla làmb ji day teel a jeex incha allah Garga du du cuune bëre waaw du cuune bëre moom parce que ndaanaan la. <laughs> ñaari wet yëpp lay bëre. ndaanaan la ñaari wet yëpp lay bëre moom mais Sa Thiès moom wax dëgg yàlla mooy favori si làmb jooju d'après man sama point de vue waa man waaw. waaw combat Garga Mbossé ak Sa Thiès tamit ba tey dem li ma waxoon lay waxaat rek. am na ñoo xamante ni ñoo ngi fii sama gars yi fii di dégg ñoom pour ñoom damaa contre waa kër Balla Gaye affaire yi mais contre ma leen cest à euh, booy kii nu mu tudd. booy Garga Mbossé gars yi dañoo yaakaar ni mënta bëre wala amul kii quoi te saa dafa mën a bëre. ñaari tànk yëpp lay bëre. dafa mën a bëre mais man li ma koy ñaan mooy bu arbitre souffleetee na dëggal boppam taxaw gars yi mënuñu ko dàq ñu ko bëree na am fula ak fayda ay moromam ñoo nekk ci làmb ji liñ ci am la ci war a am lu leer laa la wax liñ ci am lañ ci war a am dafa war a taxaw dëggal boppam moo leen dàq bëre foofu ñoom ñëpp man loolu ku teg kaamil dama koy waat ñoom ñëpp booy yëpp booy ñu koy limadoon yëpp moo leen dàq mais heure bu arbitre soufflé rek day génn day wane loo xamante ni man du ma neex dara te dama ko bëgg sama mbër la moom dama ko. wane lan la maanaam parewul wala ragal. xamante ni non day day pare mais am na loo xamante ni fit la quoi parce que nit boo demee ba takk ngeem da nga war a am da war a dëggal sa bopp dëggalal na dëggal bu dëggalee gars yi mënuñu ko moo leen mën fuuf moo leen dàq bëri fuuf man ko ba tàyyi mais gars yi loolu lañ comprendre quoi man xaw ma qu'est-ce yaa moom heure bu arbitre ne mbépp dootul xam fu muy taxaw loolu na ko bàyyi te dëggal boppam na joxe bakkanam bi na ko dindi na jël bakkan bi sànni ko fële teg ko tëj ko seen bi kër ñëw ci làmb ji dëggal pom parce que ay moroom ñoo fi nekk te li ay moroom am loolu la war a am barke Serigne Touba. am na loo koy moytuloo ci Sa Thiès. non Sa day dóore rek na moytu dóore bi rek parce que moom gaynde la day ñëw attaqué ko loolu moom bu buñ ko ko conseillé wul sax xam na ni Sa Thiès moom ba arbitre ne mbib day ñëw sa kaw. loolu moom amul sax ñu koy conseillé naan ko Sa day ñëw wala du ñëw Sa Thiès en aucun cas day bu tëddoon ba guddi sax loolu jarul ñu koy conseillé bar bi ne mbiib Sa day ñëw waaw parce que Sa Thiès amul combat boo xamante ne day taxaw ñu koy conseillé naan ko xaaral wala ngay déglu Sa Thiès ay mag ñoo koy ëmb chaque jour te li muy def moom mënoo koo tere def ar ar bi ne mbiib day ñëw sa kaw li nga war a def nag yaa koy xam yaay appliqué quoi bu appliqué rek mu leer pour man kii la Sa la moo tax moom moo ci am ci moom moo ci ëpp avantage. non parce que Sa Thiès xam nga Sa dafa nekk mbër boo xam te ne fooyewul boppam quoi Sa Thiès waaw dafa ñeme entraînement dafa bëgg entraînement malgré du sama mbër nag mais doo xoolee bind Sa Thiès xam ni kii waaw espoir la tamit ci làmb tamit quoi waaw. man loo koy moytuloo ci Garga. ah Garga Garga mooy loolu Garga bërëm dafa des ci man li ma gis Garga bërëm dafa des xaa gisoon ni ko Lac Rose tegal yow gisoon ni ko Lac Rose tegal te lay leer ni Garga mboose tamit. du duggee ci saa du duggee ci Sa Thiès tamit loolu beneen yoole la seulement moom du laa sax combat boobu munoon na xool fu mu gën a nooyee rek waaw munoon na xool fu gën a nooy waroon la bañoon teggi Sa Thiès Sa Thiès tamit du mbër bu ñuy songee noonu de waaw loolu daal laa gis. yaa sa madd bu neex. Eh, yow dundal yow madd bi yaa ko moom yow. ak Garga Mbossé ban jàngal nga ciy def. non Sa Thiès Sa Thiès Garga Mbossé loolu tamit c'est un combat mais Sa Thiès moo ëpp moo mën Garga Mbossé loolu du combat si Sa Thiès parce ba booy boobu tamit aussi quoi qu'on dise c'est un lion ah dalay attaqué dalay song dalay daan te Garga Mbossé aussi xam il n'a pas encore fait ses preuves mais mën na am dara mais que à quatre-vingt-dix pour cent moom Sa Thiès mooy favori quoi vraiment. boo xoolee ak parcours Garga Mbossé ak ñi mu daan ba pare am li mu def ci claf yeg yooyu noonu yëpp Garga ndaanaan la de. waaw ndaanaan bu mag la parce boo xoolee claf yi nii da nga ni kii champion la. mais nag day bëre quelqu'un boo xam ne fam c'est un très bon lutteur mooy mooy Sa Thiès parce que Sa Thiès soo xoolee tous ses combats day daw attaqué la song la kooku donc amul loo ci bëre quoi xanaa mu teey rek quoi mais moom combat moom vraiment Sa Thiès laa jox faveur quoi su ma doon miser Sa Thiès laay miser. gëm nga moom naa bañ a yàgg nag xeex mën na am mais du durer quoi parce Euh, Sa Thiès combat mooy da lay la combat bi jeex boo xoolee ay combat du duré du ma sax cinq minutes combat bi jeex mën na bañ am dóoran ah. waaw instant risque la quoi parce que boo xoolee ñoom ñaar xawuñu égalité kii moo sut kii moo gën kii te Sa Thiès man loolu laa si méthode de vraiment day ñëw attaqué la song mais nag kon combat bu ne ak contexte ak situation boobu noonu na tee rek def ndànk quoi mën na daan gargam Vraiment. Am na favori Si jamais, si je vais dire le, le favori, je dirais euh, Sa moom vraiment. Su ma doon miser moom si Sa Thiès laay miser quoi. Parce que boy bi vraiment c'est un lion quoi. Pour tout dire. Man nag Médina la dekk Gris Bordeaux laay supporter mais xam nga Sa c'est un très grand lutteur. Mën na am dara contre Garga Mbossé mais na dem attention rek aussi parce que Garga dafa njool. bu mu jaay combat bi quoi na jël temps xam nga cons ko ndànk ba jusqu'à xam nga après final. Garga Mbossé bu dul daan Sa Thiès wala dafa ragal man ak moom dama yoroon benn koñ. Garga Mbossé bu ma koy bu ma koy xam sos moo tuddoon Garga Mbossé sos moo tuddoon Garga Mbossé moom mu toog si cumbukaayam rek booy mu doon booy saa mais ragal moo tax mu am si làmb xool na ko yenn saa nga ñëw ànd ak ay am soore lamb yenn saa nga ñëw ànd ak ñoo xamante ni soo ragalee sax da ngay am fit lamb moom la lamb yenn saa nga ñëw ragal am fit tax li li la indi mais Sa Thiès ak Balla Gaye ñoom ñoo neexul ñeme si biir si biir si biir lamb Sa Thiès ak Balla Gaye Balla Gaye moo tax Balla Gaye moo dàq day non pare mais am na loo xamante ne fit la quoi parce que boo demee ba takk ngeem da nga war a am da war a dëggal sa bopp dëggalal na dëggal bu dëggalee gars yi mënuñu ko mooy man fuuf mooy dàq bëre fuuf man seet naa ko ba tàyyi mais gars yi loolu lañ comprendre quoi man xaw ma quest a moom heure bu arbitre ne mbépp dootul xam fu muy taxaw loolu na ko bàyyi te dëggal boppam na joxe bakkanam bi na ko dindi na jël bakkan bi sànni ko fële teg ko ko seen biir kër ñëw ci làmb ji dëggal boppam parce que ay moroom ñoo fi nekk te lig ay moroom am loolu la war a am barke Serigne Touba. am na loo koy moytuloo ci Sa Thiès. non day dóore rek na moytu dóore bi rek parce que Sa moom gaynde la day ñëw attaqué ko. wax ci diggante Garga ak Sa Thiès ko baba ban jàngat nga ma ciy def. non Sa Thiès moom avant tout dama ko gaa mere man dama ko trop contre Boy Niang foog nit ki sa sa doom sax boo ko dóor faa nga jox ko cër quoi sa doom boo ko dóor nga jox ko cër waxumaa na xale bu toll na yow. xam nga pare pare ni yow war na booy bëri moom nga jox ko cër quoi mais lamb yooyu laa ko laa ko a gaan gaan mere quoi mais contre moo ko rek bu defee le xel li mu war def noonu lamb yooyu du yàggu quoi parce que parce que Sa bu ñëwee moom moom moom Garga. moom Garga laa lay wax ne moom waaw ah, ma ne la bu ñëwee def li mu war a def noonu lamb yooyu du yàggu quoi parce que non bokkul quoi parce que seen qualité wax bëri xam bokkul quoi. boo xoolee Garga Mbossé du cuure ci lamb ba Garga Mbossé day bëree lu garaaw loo xamante ne ñaari tànk yëpp lay bëree hmm? no non garab li forum mooy nga daw di ko jël mu bal la non non dëbb la gànn kii plaqué bi ba plaqué bu mu daw daal gaa wër ndomba forum loolu la. garga day mbot ci ñaar tànk yëpp. waaw mais bu yéex a mbot de ah kon <laughs> laaj ko gànnee ko réel la. <laughs> Ah? est-ce que yoon <laughs> Boy Ngaay ak ne ko réel non saa du mbër yooyu. bon non non ba dina ma ko dara foofu noonu quoi billaay du xeex bi du bëre bi quoi très sincèrement moom kay moom fu laa feere def li mu war a def rek donc laa koy wax mais pour ma delloo ko dara non non amul de amul quoi très sincèrement. dégg naa ci yow de. waaw ah, fii fii la rawee baay. jaajëf. <laughs>